si sëñ Mourou mën ngeen a laaj renforcement te gagné wu leen. waaw mais ñun gagné nan. Hmm. ñun ñun gagné danoo gagné. mais nan ngeen gagné xam nga dama la wax ne la. 69000 hmm. euh, voix ku ko am presque. Hmm? bokk ci 11 départements yi ëpp ci ay voix yoo xam ne ñoo ko élire ñun suñ suñ su 60 mille yooyu ñuy wax su 69 mille yooyu bu demutoon ndax président du jàll deuxième tour. ci point bi ci jiitu mooy dëgg la am na ay sëriñ su doon def ay lobby ci dëkk. ngir egg bay tudd ay ndigal sax hmm? waaw am na fii ci dëkk bi ñoo xam ne lobby yooyu la doon def ñooñu ñu ngi ci dëkk bi ñàkk nañ ci seen xaalis def nañ ci ay lobby gëmloo na nit ñi tamati sëriñ bi àndut ak président Macky Sall ci ñun xam nañ ne sëriñ bi président Macky Sall la ànd. bon mais ba ba tey nee naa la ci élection yi dugal na ci ay yàq ndax pale élection la ma saaga saaga Cheikh Abdou Bali saaga Mame Khary mais loolu kuy defar dana ko def. kuy defar yi dana dem fekk say say sa ay opposant nga leen di jox ay essence ak i deux cent mille xaalis ak ak i ay bon ci foo ko jëlee xaalis boobu di ko def ah? danga fekk ki nga xam ne tamit sa doom mag la def ànd ak ñoom lan moo ne ci seen gannaaw xam nga dafa am loo xam ne bari na ci dëkk bi nañ ko joxoñ ci wax ko ci ree ca gis nga fi mu doon nii maanaam li ma la wax ne la mbir mii leeral na lu baree bare bari bari ah ñëpp xam na ne bi fi premier ministre li ñëw la fa xew ñëpp gis nañ image yi ah beneen côté bi ci desit it di am na ñu fi ànd ak moom di liggéey ah ah ñoo xam ne nii ñoom ñëpp it ñëpp xam ne ne ay ay ci ab camp lan bokk ci ñoom it seen i taaw ak seen i doom àndut ak président Macky Sall waaw ñooñu ñooñu ñi ngi ci dëkk bi te ñoom seen i doom ci boppam li may wax c'est vrai avérifié seen i doom àndut ak àndut ak président Macky Sall mhm. ca teewut ña nga ànd ak Idriss Seck bañ leen di wooyee l'homme fort de li ma lay wax à vérifier président moom lañ élire mu nekk président du Sénégal moom ñëpp la njabooti bis ni ki tey mais ci biir lu mel noonu tamit euh, xool nan ba xam ne nag vraiment. ndax da ngeen am na yoo xam ne ci kanamoon ci biir Touba nan la war a demee léegi. dafa war a am ay changement maanaam dafa war a am ay changement wala dafa war a réorienté. El Modou hmm. dafa war a am changement yu wér hmm. ab dëkk bu fekkee dafa am ñu la fa nekkal ñuy daj lu ne ngir yow. lu ne ñu leen koy def ñu la ñu leen koy def ngir yow guddi ak bëccëg ñuy xeex ngir nga war a am ndam maanaam nag dafa jot nag bu war a bàyyi xel lu bëree bëri